mu ne leen damay taxawaat samay tànk bëri spectacle nekkuma ci comme li ma waxoon ëmb seen loolu laay wax damay ñëw cadre bëri bi taxaw samay tànk bëri li may bëri am ndam dem sama yoon mais nekkuma ci sax ci spectacle. donc kii dugg léegi léegi ne combat bu yàgg la ñuy gis donc mentalement foofu laa doon waxee quoi est-ce que kenn naxul sa moroom ci ñoom ñaar ci communication. waaw côté moom laa lay côté communication nit ku nekk yaay xool ni ngay ni ni nga ko mën a dérouler ba am li nga bëgg. Mhm. loo loo loo ay ay ay mënoo dugg si bopp nit. pour xam lu muy def moom laa lay wax tey jii da xool ñaari mbër yi Balla Gaye la plupart li li muy wax loolu lay bëree la plupart. moom lu muy wax rek loolu lay andi te doolu lay bëree. mais Balla gay bu woon mais Balla Gaye mujjee gis ay quatre combats ci ginnaaw xàmmeetuñu Balla gay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg tamit quoi. waa mais maanaam xam nga benn affaire dafa am. mooy lan làmb da nga jëlee ni ñii jëlee la fi. waaw moom ay magam bañ tollee ay magam lay jàpp. Mhm. di duma di daan. Mhm. di duma di daan. Mhm. kon booy buñ ko dumaa daan wàcc na. waaw mais moom dafa taxaw dëggal boppam ne moom pareegul ci làmb ji. làmb loo ci mës a des ci nit danañ la ko danañ la ko fay. ok kon fay na làmb moo mel noonu quoi. bor bi lañ ko mais nag. gis nga Balla ak Tapha mhm. ay maas lañ si ay nataango lañ ci làmb. si Tapha ma kenn mayu ko chance de. moom dafa yàgg ci kaw. yàgg ci yoon bi mais Tapha Tine dafay xaw a am tuuti problème. day am xaw am tuuti problème pour bëree ku ci mbër mbër muy mépp ok boo xoolee si Eumeu Sène Eumeu Sène méppkat bu mag la mhm. day mépp di di dóor ay rafaal mhm. te Tapha action réaction am dafa yéex dafa yéex moo tax ba ma toogee ba gis ko mu commencé entraîner comme king boxing lañ ko xaw ma pour def MMA waaw mhm. bu mu bëggee def MMA dama ne kii profilam du pour MMA ok parce que bu defee MMA rek dafa yéex Tapha boo xoolee Eumeu Sène du xeexkat. Mm-hmm. dugg na ci gardam lu bëri yoon. génnaat te du ko gis ko moom benn benn rafaalam la am wala benn benn benn demi crochet boo xamante ne nii saa su ko saa su ko xàccee mun na koy xàccee di ko xàcc mais saa yu dalee dina def effet nag. mais pour mu dal mooy jafe. Mm-hmm. bu amee mbër bu boo xamante ne action am dafa gaaw action réaction am dafa gaaw rek. Mm-hmm. daf ci am problème ku mel ni Balla Gaye dafa gaaw. te Balla Gaye boo ko sonal. parce que Balla du ku ñuy dóor ñaar yoon ku si kor Modou Lo muy gaaw gaaw ba mu jamee benn mhm. ñaareel yoon bi da ko da da koo xajal mhm. du ko fa xaar da ko fël daw daw wëri ji ko ndomb seen premier combat seen waaw looloo tax ma a la Tapha Tine mi bu waxee damay cadré bëre bi mhm. moom du ma mooy cadré Balla Gaye Balla Gaye du ku ñuy cadré si làmb cadré ko si làmb muy ah, rek reculer ak affaire yooyu day mépp te saa yu mébee gauche droite am day ñëw ok Mbaye hmm? réaction Balla Gaye réaction Tapha Tine ku ci nekk def benn propos Balla ne ndox du bàyyi yoonam fa ma nekkoon laay fa ma daan jaar laay jaar tafaatin na jëmuma pour jël benn risque dama ñëw taxaw samay tànk cadré combat bi bëri ko est-ce que kenn naxul moromam. waaw communication communication bi moom yaakaar naa moom ku ne ngay xool stratégie bi ngay teg rek pour mën a am bunt ci sa morom parce que mais tafaatin trois derniers combats yi ci ginnaaw li mu bëree ko Boy Niang bëri ko Bombardier yaa ngi pour man. xam Tapha Tine dafa booy xool depuis ba ba mu jógee ci Ama Baldé ba léegi daa sensé bëre. effectivement parce bu doon bëre ak day taxaw. Mm-hmm. mais depuis ba mu jógee ci Ama Baldé ba léegi Tapha da ngay gis saa ba awet soufflé rek day wàcc mu cadre la. am na point yoo xam ne ni mu la cadré daf lay tëj comme ni ko ko ci waxee Balla Gaye ko ñu mais pour man Tapha Tine am na nu muy ñëwee ba awet soufflé am na muy taxaw nu muy cadré Balla Gaye foo Balla Gaye am problème parce que xam lan moo tax. comme comme parce que bu cadré Balla Gaye mm-hmm. euh, man dama jàpp ne Tapha su bëggee daan Balla Gaye Babel Souffré bu mu ko xaar xam na moo tax. ni mu doon comme ni mu bëri mooy ñaar Babel Souffré. na ko kaadare jëlee ko topp ko pour man bu ko defee rek même Balla tamit mais il faut bu ko defee de sóoraale bi parce que Balla même boo ko du arrière. wala bu bu arrière benn pas deux pas day taxaw. day ñëw sa kaw. comprendre nga. Balla Gaye su man su fekkee bëgg na am bëgg na daan Tapha Tine lu gaaw combat pour man sama xel sama xel bu gàtt. combat bi du yàgg bàyyi bi soufflé ak moom dafa war a jéem a attaqué Tapha Tine. ok kon yow loolu ngay conseillé Tapha Tine. bu arbitre sifflé ne bëreet na liir adversaire am dox ci kaw ci kaw gardam cadré ko parce que même Tapha Tine pour mu daan a na ko euh, mhm. na ko te Eumeu xuus na ci gardam ba tuuse ko mhm. man Eumeu Sène bërekat rek suuf lay bëri Balla Gaye mën na ne foofu am na différence tuuti parce que Balla Gaye Tapha Tine mu joon joon bu ko sutee itam taxul mu ah, kon maanaam pour ñu arbitre say côté boobu li man a xamal mooy Tapha Tine moom su fekkee tey bëgg na am ci Balla Gaye loo xamante wala fekkee tey ni ma bëgg na ko daal boo arbitre suuf leen na man xam nga benn affaire dafa ma jaaxal Tapha Tine ci rallonge. Hmm. Tapha Tine bu taxawee ci jëmmam bu taxawee da ngay gis ni mbër mu mën xeex la ci mise en formam boo koy xool da ngay xam ni kuwam arrangé wul benn adversaire am Balla tey boo doon def jàngat ci moom Balla xeexam ñorul Balla du xeexkat day dóor pour ut si buntu bu jàppee bëre Balla boobu lañu xam donc pourquoi pas Tapha Tine mënul dëggal boppam xeexanteeg Balla xeex ak Balla teg jaaga bu saf sapu réeral la jàpp ko daan ko pourquoi pas cela loolu lu tax mënul nekk comme Tapha lu tax loolu mënul nekk ragal la wala respecter adversaire bu ëpp la wala ñàkk a gëm ni potentialité yooyu mu ngi ci moom ko ci waa xam nga Balla ñu ñuy wax dañoo mën a xeex si làmb yëpp yëpp yëpp yëpp kenn dumawu ko ci mook Saalum Saalum bu la moom bu la dumawul xaaral ba Saalum Saalum euh, boobu dañoo tolloon si man gis nga am na foo xam bu fa tollee reyante la mhm. reyante la pour yéeg ok am na foo xam bu tollee ci làmb rek rente la pour yéeg foofu. coach baal ma rek baal ma. waaw mbokk mi asalaamaaleykum allo. asalaamaaleykum. salaam. maa ngi lay nuyu di la ziar. ngi lay fay nuyu di la dellu ziar. alhamdulilah Samb la Samb. ah kooku Samb la borom États-Unis <laughs> waaye maa ngi lay ziar bu baax moom daa fidèle moom moom moom moom moom moom géewu làmb lay bañ mu commencé bu commencé bu njëkkul dugg mooy deuxième personne waaye yàlla na yokk. ñam naa ko bàyyi bàyyi naa ko amul fen ah sa bu xanaa mu xanaa neex mu mu naqadi waaye bu neexee da ngay ñëwaat de. même bu naqaree sax da nga ko jéem a soppi mu neex. waaye déggal loolu sàmb ak a dégg. <laughs> ah mais xam nga xam nga xam nga xam nga euh, diis doree aas te ngelaw ngelaw fayu làmp. dëgg la. ko ko ku xam géew xam ni ci actualité kese la ñuy wax. dëgg la waaw géew lamb rek la ñu jëm Sénégal kanam. dëgg la. kon nag yàlla na seen jàmm yàgg. amiin amiin ñu bokk ko. maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu euh, euh, sama gars yi nekk foofu maa ngi leen di nuyu bu baax. waaw jërëjëf coach la 4 4 di leen mbay mboy mboy. ah coach. 4 4 ah mbay mboy mboy. ak coach mbay mboy mboy. mbay moom xanaa danaa jaar ci mboy gi rek. mbomboy mbomboy. ah mbomboy la mbomboy dëkkam. mu tudd mbomboy. ah mbomboy la ok maa ngi koy maa ngi koy tooñ sax naa ko xanaa danaa jaar ci mboy gi maa leen di nuyu bu baax. noo gisee euh, sa ñaari sa at gaa sama ñaari gaa yi gis naa leen de mais ah. euh, xam nga man bëgguma wax euh, Jali. Ah, lu tax bëggoo wax lan la da ngaa waaw ndax xam lu tax. non non non est-ce que mbaa xam nga ne maa ngi commencé sikk sàkk euh, victoire Balla Gaye yaa ngi commencé sikk sàkk victoire Balla Gaye lu leer laa la wax nii. mais lu tax loolu sàmb. Balla Gaye balaa ngaa xam balaa ngaa xam ni kii dafa am doole dëgg. Ah. mu réew mu réew. mu réew maam réewande làmb la yore. <laughs> yaa ngi may déggool ma. maa ngi lay dégg bu baax. Balla Gaye saa boo gisee ne réew na si làmb ji mu maam réew daal maam réew daal réew nga xam mm-hmm. ni saa waay kii daa bañ doole. kii du ñeeku ñebbe. Mm-hmm. ba pare benn message ci Balla Gaye Balla Gaye man pour sama gis-gis dafa yëpp waa géejawaay. dafa yëpp waa géejawaay. ndax man waaw. tax loolu Samb. Jali man mënuma comprendre nga teg la deux défaites. Mm-hmm. bi nga ñàkkee sa roi des dem tukki ñëw am Gris Bordeaux mel ne gaynde ci moom forme ba nga fa indi la yàlla xam doy na ñu jox la Modou nga dem rey sa bopp indi lu wóor indi forme boo xamante ni kenn su koo gis ci Balla Gaye jour bi muy bëri Modou Lo waxante dëgg dëgg la kon dalay leer Balla Gaye mi dafa dem reyoon boppam ndax ñu jël roi bi moom sax moo gën Modou Lo daan la Balla bu amee yeneen combat yi di ko négligé wala bu entraîné wala ñu naan forme Balla am na forme wala amul forme dëgg dafa neexut. Mm-hmm. Balla dafa war a respecté combat yëpp comme ni muy respecté combat Modou Lo. Mm-hmm. Balla Gaye bu amul forme ci làmb ci moom la. Mm-hmm. moo ko tey. ndax Modou lu mu tuuti tuuti da nga dem rey sa bopp ci àll bi entraîné ba wow ko delloo sa biir bi. keroog bi keroog man vidéo Balla Gaye laay seetaan mais seetaanu ma vidéo Modou Lo déggoo ma de ndeysaan li may gis Balla di entraîné mooy mooy mooy muy appui avant ba pare muy ñu waaye yow ñaari mbër tim ko di wéq biir bi muy gelloon mhm. pour la lan moo ko jaral Modou Lo du ma daan mhm. dafa tin mi waa Bawol de ba Balla Gaye di ko daan ñaari yoon de lu leer laa la wax mais tafaatin gars yi nee nañ ci biir communication Tafatine Tafatine on le sent pas quoi sentiruñ ko à 100 pour cent de. dafa am lu mu dencal Balla Gaye waxoon naa la ko keroog. waaw loolu la ñuy wax dafa mel ni dafa mel ni dafa boppam quoi Samb. lan. ma ne dafa mel ni dafa nëbbu boppam wanewul dara dafa dafa noppi rek xam li mu xam xam ba ca li naan xam ba xam li mu xam rek. toog ma ne la. Tafatin mii laa la wax Tafatin mii bés bu daanoo si làmb ji moom bu yeboo moom combat mook Modou Lo moom bu yeboo yéen waa làmb ngeen fàtte ko moom lu leer laa leen wax ndax man làmb ji ñoom ñaa ñëpp laa yërëm ndax ku ci daan da ngay da ngay pare si làmb ji. waaw ku ci daanoo da ngay pare si làmb ji te ku ci daan moom. Mhm. jàppal ni roi des arènes mi ngi si mi ngi ci sa loxo. dëgg la Samb. te Balla Gaye ku mën a ñëwaat ci làmb ji la ndax Balla Gaye làmb ko bëgg Balla Gaye ñëpp ko bëgg. Ah, loolu de am kon ku war a mën a ñëwaat ci làmb ji la man li ma koy respecté mooy li ma koy conseillé mooy làmb ji mu gën koo respecté xam ni Tapha Tine daanoon ak mi bokkul de dëgg dafa neexut. dëgg la dafa liggéey ci diggante bi changé ci diggante bi. dafa liggéey loxo yor ko wax na ko ba ko Ama daanee ba léegi dafa changé. Mhm, mhm, mhm. am na staff am na ginnaaw mi ngi entraîné xam na li muy def bëgg na li muy def. lenn rek mooy problème bi mooy diib bi mu diib ci làmb du yoon. waaw moom Eumeu seen fu mu la mën a touché ba gaañ la moo tax mënu loo am fitu taxaw daa ne Tapha bi ba su ma doon bëreeg moom su ma bëreeg moom dafa yomb ci man parce que xamul lu tax Eumeu euh, mënu loo ndaama la. nga ne lu tax Eumeu Sène da martu. ok. ko dóor. Mhm. bokkul nag. mënu loo bu mu lay dóor ba bu soo dóoree ba sa so waaye sa loo si bu demee ba réseau bi ñëwaat waaye fàtte nga sax la nga indi woon. <laughs> dëgg la coach parce que parce que loxo bee moo gaaw. Eh, dëgg la Samb. kon Tapha Tine. xelam mhm. na ko def ci làmb ji. Mhm. lépp lu muy def na gaaw. bu mu bàyyi Balla Gaye diriger ko. Mhm. dëgg la balaa bu ko Balla Gaye diriger na ko diriger daan làmb ji. mu jeex. bés bu ko Balla Gaye diriger maa la wax ni Balla Gaye dina ko daan jël bu rek ñibbi weer laa la wax. dëgg la Samb kon da teg foofu sa loxo ba dimanche incha allahu rabbi dinañ ko def direct. dégg naa yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal bég naa trop kontaan naa yàlla yàlla defal leen jàmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu koy nuyu. Samb baax na taw naa lool yàlla yàlla defal leen jàmm ak suñu tubaab. amiin amiin ñu bokk ko. jërëjëf sàmbu jërëjëf ñun ñu waa États-Unis d'Amérique euh, mu doon Samb di koo xamante ni wax dëgg yàlla ku fidèle la ci émission Géop Lamb tous les lundis wala tous les vendredis bu ñu nekkee ci plateau mu dugg woote wax gis-gisam wax xalaatam donc loolu doonoon euh, dernier jàkkaarloo bi léegi dama bëgg ñu dem seetaan yi Balla Gaye open press bi mu def teg ci point de presse su Tapha après soga dellu si waat ci plateau bi rési bu fekkee pare na mën ngeen ñu ko jox open press bu